Heavyweight.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 million huit cent mille aw law ñu ñu teg loxo nag bokk na ci ab agent bu aéroport Blaise Diagne ba nekk ca Diass ak ab sëriñ tamit bokk na ci ñu ñu jàpp nga ni ma ñeenti nit teg nañu leen loxo laa wax def katu ñaawteef yooyu nag defeere nañ leen pour association de malfaiteurs ak yor xaalis bu baaxul bëggoon koo dugal ci marché bi chef de bande bi moom dafa daaw way takk der yaa ngi ci tànkam ba ci xabaar yu mujj sax nee nañu localiser nañ ko fële ca Sindia réew mi léegi wàllum trafic de faux billets mu ngi koy bëgg a tas te loolu nag wéyee di am mën na ruur suñu économie réew moo tax ma Eh, jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca wakaam doy na war daabo di ab nappkat la élément te urbaine yi teg loxo ci guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñett bii weesu ci weeru sulet ci waxtu quatre heures du matin daabo nappkat boobu nag yemul woon ci napp dong ndax ñu ngi ko tegee loxo wàllum trafic de drogue cay cay mim réew te drogue boobu ñu jàppee daabo nappkat nag du drogu njalaxaan cocaïne héroïne sa waay nag bi mu daal daanoo way takk der yi fekkee nañ ko ak téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti keppa héroïne ak fukk ak ñeenti xeeru cocaïne aw law ni way takk der yi def ba teg ko loxo nag nii la police dañoo am information bu leen xamal ni am na ab trafic de drogue bu mag bu am ca wakaam police yi jaar ci suuf si wilu teg dil waa ji commandé ko drogue waa ji di daabo pêcheur daje ak ñoom ci béréb bi ñu joxante woon rendez indaale ñaari paquetu héroïne ak ñaari xeeru cocaïne ci lañ ko tegee loxo waaw góore waay ci noonu te sûreté urbaine yi jiital ko ci saasi ba ci këram ba chamram fekk fa quantité drogue bu takku waa ji di daabo nappkat nag bi ko police dégloo nangu na ne jaaykatu drogue la moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax soxna si nag li mu def rey na ndax da doon génn ak benn waay waa jooju nag daa am jabar lii de nag mooy maîtresse de homme marié wala la infidèle nee ñu waaje ko doon fayal appartement am carte bancaire bu waaji sax corom soosu mu doxaan moo ko yoroon li ci mujje am nag moo doy waar ndax waaji dafa génn àddina inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye waaji bi mu génne àddina corom si daa téye carte bancaire bi di ko utiliser di retirer xaalis ci kontam eskay li mu ci jote retiré nag toll na ci un million cinq cent mille bi ñu informé jabaru waaji ci la ko yóbboo ci yoon yoon atte ndaw si daan ko ñetti weeru kaso yu mu dul tëdd cëy mim réew dañuy sacc bay sacc ay néew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax juróomi xale yooyu nag te ñu ne dañu leen a enlevé woon ca Touba mbir ma demewul noonu ma ne xale yi kenn mësu leen enlevé seenu plan la ñu tegoon de ka ca ëppi at 19 ans ka ca topp 18 ans keneen ka ca topp 15 ans yeneen ñaar ñee maase ku ne 14 ñoom ñëpp nag ñu bokkoon benn kër enquête bu njëkk bi nag ñoom ñëpp bokk li ñu waxoon li ñu njëkk a wax mooy ab waay moo ñëw ab 4 bu noir daa di leen forcer dugal leen ci ñoom juróom loolu nag mu ngi xewee ci wetu arrêt tata numéro 4 ba nekk ca daaru rahmati boobu nee ñu ñu ngi doon dem ci jumaa ja ngir ziyaare xale yi ne bi leen waa ji yebee ci 4x4 bi quelques minutes après waa ji leen kindape dafa wàcc ubbi maalu 4 x bi nee na ci lañ lañ gëj xamee fu ñu nekk yomb na juróomi jigéen benn sofooru kat-kat taxañ leen yuuxuu leen ba mu wàcc ubbi maal bi ngeen di doog a perte connaissance waay waay lay day jub waay te nee nañu kenn ci ñoom wax na ak yaayam ñaari yoon téléphone te boobu nee nañu perte nañu connaissance waay ñii ñoo yabaate waay moo taxit gendarme yi mësuñoo gëm ne kidnapping la benn nit bu yor kat-kat yorul arme kidnappé juróomi jigéen embarqué leen par force waay yomb na waay moo taxit ku makkee mujjee wax de moom borom jëkkër gi nee na ravisseur bi du kenn ku dul faram mu waay ne ñoom ñoo tegoon seen dil manigancé ngir mën a passé week bu neex ca lagrose laa ilaha illallah am jëkkër am far réew mi tas na ba noppi ànd ak moom dem passé week bu neex <laughs> xanaa li de mooy infidèle ma ne xale yooyu bi waajur yi nekkee ci njaq tiis boobu xale yu jigéen ya ña ca seen piscine party Maki ca Lac di dund paradise ak bégee <laughs> moo tax ma ne xale yee sut xel mag ñi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax ëskëy ma ne xaw ma ku korona waaye du waa croix rouge bi ab xale bu jigéen bu ati toll ci ñaar fukk mu am jàngoroy corona ñu hospitalisé ko ci ab centre de traitement bu covid 19 ci ab hôtel bu mag fii ci centre ville bu Dakar ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet bi weesu agent croix rouge boobu nee ñu daa yot xale bu jigéen boobu am jàngoroy corona daa di koy wiyole ëpp tëllaw li gën a ti doy waar nag nee ñu bi muy wiyole xale bu jigéen bi ab gant de protection bi ñuy aaree jàngoroy Covid 19 la transformé def ko préservatif eskay xanaa ma yem foofu ndax réew mi li fi nekk kenn mënu ko wax mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi yeneen xibaaru buzz.